ak siyaar beeg ndokkeel gi ñu jiital ci kilifa dëkk bi di Sëriñ Bara Touré koy nuyu bu baax a baax eh, nuyoo bu dëpp ak wàccuwaayam waaye eh, di ko ñaanal mu yàgg ci kanam njaboot bi sunu doom ko dolli ko fan ak wér ba mu àggali mboolem lim naalal eh, sëñ Mor Faati bokk ko liggéeyal mu àgg lépp ak Seexul Xadim waaye nuyu it yi nga xam ne ñoo taxawal lii lépp ngir dundal lislaam ak tasaare ko ak fàttalante suñ jiiteel sëriñ as mi ci mag teg nuyoo bi ci loxoom jëmbul dana àgg ci ñëpp waaye beral nuyoo nag dere sëriñ Tuubaa ji fi nekk muy soxna Oumy galas ñu ko nuyu bu baax a baax di ko ñaan moo tey mu yàgg fi lool te ak mboolem ak njabootam waaye nuyu mboolem ñi ci jotaay bi Eh, niñ ko waxee léegi tomb bi nu waxtaan loo mooy at tarbiyatu fil islaam te moo di yar ci lislaam nan la ko lislaam jàngale nan la ko gise ak lan moo ci mën a juddoo mu nekk tomb bu am solo am na solo jamono yépp mat naa waxtaane jamono yépp waaye da cee rawati suñ jamono ji ñu toll nga xam ne yi ci rax yuñ xamutoon dafa bari lool li mën a yàq liggéeyub lislaam ci ndaw ñi bari lool kon dana jaadu saa su nekk ñuy waxtaan tem boobu waaye da ci rawatina jamono ji ñu toll yar nag dafa nekk lu am solo lool solom mën nañ koo xamee ci boo dendalee ku ñu yar yarub lislaam te yar ba àntu ba melokaan yar di mën a jur ci nit daje ci moom nga dendale ko ku ñu sàggane ku ñu yarut mu mu wéye bakkanam nañuy woote rek mën nga ca xame am solo yar ak ñàkk solo ñàkk yar yarit nekk luy jural nit ki texeeg tey ak texeeg ëllëg na ko sëñ bay jaxate waxe woon ne amab yaray tax ñu xëy fab nit ne tegg ca kaw ñàkkab yaray tax ñu teggee nit ca kaw di ko caw kon yar mooy taxa texe tey ëllëg waaye ñàkk yar mooy taxa e, texe di tey ëllëg waxit ne ab yar li tax amul moroom day tax a gën fasa boroom tey tax a gën fasay moroom kala yarul rekk la nax kon yar lu am solo la lu mën a jural nit ki kon texe tey mën ko jural itam texe ëllëg ci coobare sun borom nit nag su fekkee dañ ko yar kon yar bu baax te yar bu mat ba yar ba jeexital ci moom euh, dafa am lu sun borom bindaali nit lu ñu tuddee fitra fitra ku judd ku nekk moom lu judduwaale mooy ku judd ku ne dangaa judd ci ak sedd wicc indi woo benn taq-taq indiwoo benn tâche waaye sa dund àdduna su fekkee bakkan mi ngi liggéey ci yow àdduna liggéey ci yow eh, seytaane ak ya ca des yëpp ak bànneex liggéey ci yow te fekk amoo ko la yar yar bu yar bu rafet ba fitra boobu day sangu waaye suñ la yaree nag teg la ci yoon fitra boobu nga xam mooy set gi nga indaal mooy continuer mooy dootoo taq eh, loolu la yun saa su doon firndeel ne kullu mawludin yuladu alal fitra fa abawaahu yu hawwidaanihi aw yu nasiraanihi aw yu majjisaani ku judd ko nag ci set wicc ci la judd ci njub la judd waaye ay waajuram wala yarkat ba ko yar moo koy soppi yahud wala nasraan wala majus waaye su dee nekk jullit bu ma sëkk la mu war a doon baax mel na war a mel ba tey yarkat moo koy def kon mooy yar nu nit mel rek yar moo ko def noonu nit nu mel yara ko def noonu ma tax sunu di wax ne wa nafsin wa ma sawaaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha xad aflaha man zakkaaha wa xad xaaba man dassaaha bakkan bu yàlla bind da ko sàkkal ñaari yoon yoonu baax mu yoonu njub ak yoonu safaan bakkan bi ñu yar sellal ko dindi ay tilimam ak i taq-taqam mooy tànn yoonu juba jaar ca soja jaare jaare texe rek lay dajal waaye bakkan bi ñu sàgganee mu des ak tilimam ak i taq-taqam eh, yaruñu ko defaruñu ko mooy tànn yoonu safaan te bu ci jaare texe rek lay dajal kon xad aflaha man zakkaha waaye waxad xaab man dasaha yi itam bu ñu ko yaree mooy koy jural ngërëmal yàlla ki ñu yar ba bakkanam sell xolam set su dee bay dellu ci suñu borom dañ koy wax ne ko yaa yaa ayyatuha nafsul mutma'inna mutma'inna irji'i ila rabbika radiyatan mardiya fadxuli fi ibadi wadxuli jannati yow bakkan bu teey bu sell bu rafet bii ñëwal dellu ci sa borom ndax doon ko gërëm yàlla yàlla mi gërëm la ñëwal tab ci sama jaam ñu texe ñu texe ñi waaye ñëwal tab sama tab samal aljanna kon loolu yar ba mañ ko yar ba def ci moom jikko ju rafet mooy mooy la koy may la Euh, yar nag suñ koy wax ci kon ci day mel ni ñuy teel ndax ku ñuy yar ci ndaw muy muy at yu néew ci lañ ko tàmbali yar muy bi dara nekkul ci moom nee naa day juddoo ak set euh, tayit day mel ni alal ak njaboot ñooy taaru dundug àdduna di ko sun ba waxee almaalu wal banuun ziinatul xayaati dunya alal ak njaboot taaru dundug àdduna lañu mu nekkit xéewal gu yayoo sant yàlla wajaatuluhu maalan mamduuda wa banina shuhuuda wa mahatuluhu tamhiida kon ci day mel ni kon masuuliya la bu yàlla gàll ci képp ko responsabilisé mbooloo moo xam sax njaboot lañ moo xam njaboot yuñ la jox la waaye yàlla ñu fekk ni ci saroon kon da nga yaa leen responsabilisé yar dafa daan nekk kon lu teg ci sawla su nekk masuuliya muy responsable bu mag a waaye rawatina ci lépp lu leen di yéwénal mooy lu tax ñu baax teg ci aw yoon <coughs> sun borom soññee ci yaa ayyuha alladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naara yéen ñi gëm yàlla na ngeen fegal seen bopp ak seenu njaboot sawara fegal sa njaboot ak sa bopp sawara may gannaaw boo tegeew ci aw yoon yow ci sa bopp nga sag njaboot fexe ba sellal seeni xol laabal seeni bakkan teg leen ci aw yoon jiitu ca di leen ci wamat kon mooy jaar nga ci yoonu musal sa bopp ak sa ak njaboot ci sawara te yonent bi sallallahu alayhi waxoon na ne allimu anfusakum wa ahlikum alxayr na xamal seen bopp te xamal seenu njaboot aw yiw muy lu baax jël ñi Abdullah ibnu Omar radiyallahu anhu mu ne sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul kullukum wa kullukum mas'ulun an ra'iyati al imaamu raa'in wa mas'ulun an ra'iyati wa rajulu raa'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyati wal mar'atu raa'iyatun fi bayti zawjiha wa mas'ulatu fi maali sayyidihi wa mas'ulun wa mas'ulun an ra'iyatihi xadis bu matale la buy tegtale kon bi yàlla jox ku nekk ndax daa wax ne yéen ñëpp ay sàmm ngeen te kenn dana rendre nan la sàmme woon lañ ko dénkoon bu dee imam ji jiite mbooloo mi ab sàmm la ci ñamuy jiite ëllëg dañ ko laaj nu mu leen jiite woon euh, waa ju nekk ab sàmm la ci biir ak njabootam danañ ko laaj nu leen sàmmi woon jigéen ju nekk ab sàmm la ci biir kër boroom këram daañ ko laaj nu ko sàmme mbindaat mu nekkit ab sàmm la ci alali sangam dañ ko laaj nu mu ko sàmme yéen ñëpp ay sàmm ngeen te fa faaw dañ la laaj ëllëg ngeen sàmmi kon kenn ko nekk da nga rendre bi nga amoon ci wàllu yar ci ñi nga responsabilisé yun saa sam gën ko firndeel wax ne inna allaha saailun kulla raain am mastaraa a xafida am dayaa xataa yusala rajul an ahli baytihi nee na yàlla dana laaj sàmm bu nekk lam ko doon sàmmaloon ko sàmmee ndax sàmmoon na ko ba teg ko ci aw yoon wala sànkoon na ko ba dañ laaj nit sax waa kër muy ay soxnaam nan la doxaloon ak ñoom ak mbokkam nan la jëflante woon ak ñoom waxaat ci beneen xadis ne maa naxala waalidun waladan afdala min adabin xasan wenn waajur mayul doomam lu gën yar ko yar bu rafet wenn waajur mayul doomam lu gën yar ko yar bu rafet kon mooy may ga gën a rey gën rafet goo xam ne defal ko sa doom loolu day wane kon ne yar kon lu am solo la lu mat a bàyyi xel la waaye lu war a teel la itam yonente bi sallallahu alayhi wax na ci beneen xadis ne man ibtuliya bi haadihi albanaat bi shay'in fa ahsana ilayhinna kunna lahu sitran min an naar képp ko yàlla nattoo njaboot gu jigéen mu rafetal ab yar mu rafetal jëme ci ñoom yar leen yar bu rafet dañ nekk kiiraayam ëllëg ci sawara waxaat benn xadis ne man aala thalaatha banatin fa addabahunna wa zawajahunna wa ahsana ilayhinna falahul janna képp ko yàlla may ñaat doom yu jigéen mu yar leen yar bu rafet ba dencal leen borom kër rafetal jëmi ci moom ëllëg warlu nañ ko aljanna kon yooyu nusuus yëpp ak yu ñoom yu baree bari la dafay tegtal ngëneelal yar sag njaboot mu nekk benn fànn eh, ci tarbiyatul fard te mu eh, jëm jëm yar nit an lislaam daf cee daf cee dox bu baax a baax a baax a baax ci forme nit ngir mu nekk benn membre ci société bi nekk membre bu am njariñ nekk insaan saalihan waaye nekk itam eh, ndax day mel ni mooy li taxoon sunu boom yónni yónti alayhi salaatu salaam mooy defar nit ak yar ko moo taxoon yónti ñëw wala si baasa fi lumina rasul minhum yatlu alayhim ayaati wa yuzakkihim wa yuzakkihim mooy wa yurabbihim sunu boom dafay mooy mooy mooy ki yebal kenn ci ummi yoon yi ñu jàng mënut jàng mënuñoo bind mu tànn ci yebal ko ci ñoom mu nekk ndaw ci ñoom di jàng ci ñoom aaya waaye di leen tarbiya mooy defar seen xol di leen yar kon taskiya mooy tarbiya mooy gën mooy li gën a mag gën a ko ci lépp lu ñu yar lu ñu yar nit mooy taxqiqul ubudiyatillahi rabbil alamin mooy fexe ba gëm yàlla ak sellal ko ak jaamu ko jaamu ko yoon ne ci moom mooy li gën ci lu ñu yar nit ki waaye sellal jaamu kooku itam mucc ci lépp luy bokkaale ibnu kathir rahimahullah nee na yuzakkihim ay yutahiruhum min rasail al axlaq wa dana si nufuus wa afaal jahiliya nen wa yuzakkihim mooy ñu dee leen laabal ci bon boni jikko yi ak tilim tilimi bakkan yi ak jëfi caddo gi ak mën a jëfi caddo loolu la moo tax kon yonent yépp ñëw jamono moo tax nag boroom xam-xam yi yooyu jullit yi yitte woo lool mbirum yar nga xam ne boo demee ci seeni téere seen mu àllafaat dangay fekk mu fees ca dell leer ca nañ ñi itam ci lépp laaju ci am solo yar ak leeral yoon yi ñu mën a jaar ba mën ca àgg ak meññet yi ci mën a juddoo imaam Xasaali yu ne woon na rahimahullah as-sabiyu amaanatun inda walidayhi wa xalbuhu taahiru jawharatun nafisatun taatijatun xaaliya an kulli naqshin wa suura wa huwa qaabilun li kulli ma naqasa nuqisa wa maa ilaa kulli ma yumaa bihi ilayhi daa wax xale amaana la mooy ndénkaan la ci ñaari waajuram ab xolam dafay laab dafay set wicc nekk wurusoo gànjaru waxan benn kooj néewu ca waaye melagu nen nag xam nga or bi nga jël indil ko tëgg nen na waaye su ca noppee nag day neex a xool mën naa ñaaw li bi nga ko waaye boobu melagu nenn waaye nu mel na tëgg bu moo koy def noonu xale noonu la mel mooy melugul nen wurusoo sell wu daqu dara waaye melugul nen na waaye nangu na nag lépp lo lépp noo ko ñëwal lépp loo ko bëgg a forma euh, maanaam forme boo ko bëgg a jox rek nangu na loola day jàng jëm ci lépp luñ ko jàngal jëmee su fekkee tàmmal nañ ko aw yiw fa in aw yi dal xayr wa ullimahu nasa alayhi su fekkee di dañ ko dañ koo jëmale ci wetug yiw yar ko ci lu baax tàmmal ko ko jàngal ko ko day daal gimmi ca loola su lu mu xas gimmi nag loolay continuer ci moom waaye dafay jàng jëm ci lépp boo nag suñ ko jëmalee ci lu baax ba mu gimmi ca day daal texe àdduna ak àllaaxiram mbokk ko doon yar mu ñaari waajuram ak képp ku ko jàngal ak ku ko yar waaye fekkee dañ ko te tàmmal nag lu baaxut yar ko ca ba mu gimmi ca loola neenal ko comme ni ñu neenal li bàyyi ma bàyyi rek muy dex doxi ba kanam dana texe di alku te bàkkaar ba aju ca ka nga xam ne moo ko waroon yar muy waajur wa mbaa kilifa gam nekkaloon kon la nekk lu am solo yar nag e, nekk lu lu lu lislaam masa yitte woon naka jekk te loolu it day mel ni ni ko def mu nekk warugar wuñ gàll ci loosu kilifa gu nekk nga xam ne ëllëg daañu la teewal laaj la ndax rafetal wala wala sànkoon nga ko kon lépp lu sunu bam di digle ëllëg mu la cay laaj su fekkee yéwi noonu nga texe su fekkee yéwi yéwi di woon bu fekkee mel na war a mu jur texe di kon dafa tegtal lu am solo la waaye lu ñor sunu bam waaye lu ñor lislaam la. waqifuhum innahum mas'ulun la sunu bam wax ëllëg nit mën nañ koo indi bis penc ay jëfam rafet baax lool ñu seet lépp rafet. bañ ne kii de mën naa dem aljanna ak njabootam ne ah sunu borom kii de moo doon sunu waajur waaye wala moo doon suñu kilifa am na lu war ci lu ko war ci ñun te defu ko su ma dee malaaka yi ñoo ñu nagel leen taxaw taxaw taxawal ñu laaj leen ba xam nu defa seen njaboot suñ ko seete fekk sa digg njaboot nag la ca la ci war defoo ko boo walees bi la taala yoonu àjjana wooyu mën a fomb kon lu mat a bàyyi xel la suñ delloo itam ci njàngalem Sëriñ Tuubaa dañuy fekk itam mooy mu xóotal lool ci biir fànn googu mba jagleel ko téere boppam ndax ju xadaal xaaj nga xam mag ñoo ko sàkkoon ne ko kat dañoo bëggoon téere boo xam ne jàngal nu ñu rafetal jikko ak nu ñu làmboo ay teggin mu ci téere boo xam ne lool képp ko tax jóg muy ndax ju xadaal xaaj nga xam lépp ci teggin ak yar rekk la jëm da caa leeral ne nit donte mi ngi topp yàlla naam rafetal ak toppam ndax kuy topp yàlla ku nekk la nga bëgg mooy ak texe aku jariñu def naa kuy topp yàlla lu lu nga ci bëgg mooy bëgg ngaa texe ba ngaa jariñu Sëñ nee na kii topp yàlla te boolewu ko ko bi yar des na ko xañ ak texe xañ ko ak jariñu id kullu man bi gayrihi raama tibaa fa innahu yuhramu fawzan wa intifaa yarit mooy ngeen ji lépp lu nit fàggu àdduna ak alaxira mooy ngeen ji lépp lu nit ki woomloo mbaa mu cee sàkk personnalité wala daraja yar moo ci gën woo fi darin xayru kanzi wa xayru mataz bihi zu izzi yarit bu nekkee ci nit donte da nga nit ki dafa nekk ci dafa nekk ku réer ku jàngul xamul dara waaye am nab yar yar ba mooy nëbb réer googee ba kenn du ko xam ni su fekkee dafa bokk ci askan wu ñu xeeb askan wax ne kenn nawlawu leen waaye am nab yar yar ba mooy nëbb loolu ba kenn du ko xam wa huwa allasi jaala xusnal adabi yux fii jahalatan wa xubxa nasabi nit ki itam lépp lu mën moo xam dafa am xam-xam dafa am daraja dafa am personnalité dafa am alal waaye lépp lu mën a am te fekk booliwu ko ko yar loolee mu du ko jariñoo keneen du ko jariñoo ñàkk yar dafay jural ndikk ki ñu dàkk ko ci péyu yàlla subhanahu wa taala te àdduna rek misaal na ko te ji boo demoon ci buntu kilifa moo xam kilifa gi diin wala kilifa gi àdduna nga bëgg koo gis wane ak yaree du ko ci buntam doo àgg ci kilifa ga suñu borom noonu la mel képp ku yaree di ko ku amutub yar dañ koy dàkk ci péyub yàlla dafa mën a àgg mukk yarit dafay waral dafay jural murit bi ñuy yar mu am noorul maarifati billaahi taala leeru xam yàlla yar moo koy def ci nit leeru xam yàlla ci xol lay nekk yar mooy sellal xol ba leer ga mën caa bi la yar moo ca tab ba léegi su fi tab yar moo koy ci sàmb dootu génn euh, loolu Sëñ Tuubaa di wax ne li annahu l munawwirul janaani kama yuqarribu ilal janaani yar mooy li sellal xol def ca leeru xam yàlla te xam leeru xam yàlla bu xa seen ci nit ki moo koy xëcc di ko jëmee aljanna waaye mu wane ni itam euh, yar dafay setal ab der soo yaroo képp ku la bëgg a gàkkal dem ci say dëkkandoo mbaa ña la xam bëgg laa sikkal Eh, ña nga ñoo leen njëkk a défendre ah ko déedéet ko koy ku baax ko koy ku mel ne kon ñoo lay seereel sang baax ku bëgg yàq sab der ci ñoom ñoo lay defandar te boo demee ba sab der set ci nit ñi na lay sete fa yàlla boo mooy mooy li lay soril sa war a wa yooyu jibul maddaxa la dal jiiraani kama yu baax idu ani niraani loolu lépp kon tegtal am solo yar te yar nag natiijaam mooy al adabul mardiya mooy tegginu ñu gërëm sëñ bi ni ko ñan joxe la xaaj loolu tax na lislaam yi teewoo lool mbirum yar ba man nga ne sax lislaam léppam daa ñëw ngir yar lislaam lépp rek daa ñëw ngir yar suñ tàmbalee ci imaan billahi mi nga xam ne mooy li jiitu balaa nit kee nekk tudd julit gëm yàlla ba noppi gëm daa mel ni yar nit a ko taxoon a jóg gëm su fekkee dafa ne ci nit dootu aajewoo ñi ko wutal ab sàmm dootu aajewoo ñi ko dal ab policier wala gendarme moom képp kaso yi mën nañoo tëj su doon moom képp tribunaux yi mën nañoo tëj ndax lay tax a daje ci tribunal di sooboo du ko def lay tax dem kaso yi du ko def dafa nekk ku jub ku tege ci aw yoon tey axaadis yu baree bari root na ci yu tegtal loolu bokk na ci rek <coughs> lii du saasan di wax ne laa yasni assaani hiina yasni wa huwa mu'min <coughs> mu dam boo xam ne aayatu munaafiqi thalath ida xaddasa kadaba wa ida waada axlafa wa isa tumina xaan ci beneen riwaaya wa isa xaasama fajara ci beneen riwaaya wa isa xaaxada xadara nee na melokaani ku gëmut yàlla melokaani ku gëma matut ñett la su waxtaanee waxtaan wu neex dana ci dugal ay fen su su la dalee man su la dëxalee man su la diggee lam di lam la dig du ko def soo amantee moom rendiw mu fausse rendiw ba ci beneen riwaaya su xuloo dana xaabaabal ba wax lu muy rëcc ca beneen riwaaya mu ne soo kóllonteeg moom it kólloo gi da ko firi kon nga gise kon gëm yàlla dafay defar jikko di defar xol moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne laa yuminu ahadukum xataa yuhibba li axi maa yuhibbu nafsi kenn ceen balaa gëm a mat dafay bëggal mbokkam la mu bëggal boppam la muy tegtal mooy ku gëm rek kon ku gëm rek lépp lu baax da koy def waaye lépp lu bon da koy moyu su ñëwee ci ibaadaat yi muy jaamu yàlla yi yi cër yi jëf làmmiñ di ko tudd ni gëm yàlla di defare xol dina yari nit noonu la jëf yooyu itam defarit xol di yari nit suñ jëlee ci misaal ponk lislaam yi juróom yi al iman wax naa ko buñ jëlee ak julli julli daa mel yar rekk ko taxoon ñëw suñ boom nee na inna salata tanha anil fahshaai wal munkar julli dafay dox diggante nit ki ak jëf lu ñaaw jëf diggante dox di jëf lu ñu sib nit su jëfatul ñaaw jëfatul lu si booba booba jëm na yaru na lañ bëggoon ci moom mooy loola su fekkee julli ko def ci moom kon mooy julli day yar waaye Sëriñ Tuubaa teg ca ne laakin nada bi sababil xushuuc ila bi gayrihi faxsha wana ilma la la balaa jullee def ci yow day fekk yow la julli laaj nga jox ko ko la julli laaj ci ragal yàlla laaj ko ci toroxlu laaj ko ci ci sellal laaj ko ci jëf maanaam matal lépp matal njàpp ma koy jiitu matal rukon ya matal sujjóot yi matal lépp jox ko xàqam jil nag door liggéey ci yow ba dox si dégg-dégg jëf ñaaw ak jëf ñu sib moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon ko misaal ci ak dex su fekkoon kenn ci ndaam ak dex ci buntu këram bés bu ne mu sang ci juróom yoon moo tax daa deseeti ab tér ñu ko yaa Rasulullah ko koy doot des ab tér mu ne noonu la julli mut juróom mel te lay setel wicc ci melokaan wu ñaaw def day set wicc ci bépp bàkkaar ni ko noonu asaka ak xeeti infaq yépp fi la bépp joxe bu yàlla tax moom it jaamu yàlla gu am solo la ko xam dafay laabal xol di ko yar di ci génne melokaanu nay di ci génne melokaanu bëgge di ci génne jiite sa intérêt bopp ci intérêt mbooloo mi waaye daf lay yar ci ak tab di la yar ci yéene ñëpp li nga yéene sa bopp waaye di yar ci loo am bokk ak ñëpp moo tax e, suñ borom waxoon yentu saa sa ne ko xud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim yow muhammad jëlal asaka ci alali jullit ñi soo ko jëlee dana sellal seeni xol dana laaba seeni bakkan tutahhiruhum wa tuzakkihim e, waaye soo ko jëlee nag danga leen ñaanal ndax sa am na solo ci ñoom wa salli alayhim inna salawatika sakanun lahum wala samiun alim kon ci lañ jeex na kon infaaq muy joxe ngir yàlla dafay defar ay jikko dafay laabalit ay xol di ko sellal su ñëwee ci koor koor yi di yara ko tax a ñëw suñu baam nee na yaa ayyuhal lazina amanu kutiba alaykumus siyaam kama kutiba ku min qablikum la'allakum tattaqun kon tattaqun jooju mu daanale aay ji moom la asakat def ci ni muy ragal yàlla dañu wax ne sunu Boroom bi mu bindee bakkan da ko ne ko yaay yow bakkan yaay kan man may kan bakkan ko yaay yow may man sunu Boroom dugal ko sawara diir bu yàgg génne ko laajaat ko lam ko laajoon mu tontuwaat lam tontuwoon mu dugalaat ko sawara ab di génn ko tey mu tontuwaat lam tontu ba mu ñetti yoon neen suñu borom xiifal ko wenn waxtu rek laaj ko bakkan yaay kan ak may kan mu ne ko yaay sama borom bu màgg bu tedd bu kawe may sa njaam su suufe su ñàkk solo su torox mu xam ne kon bakkan da koy xiif rek ko mën a yar daal koor ci noonu kon koor ni mu yari nit di ko defare di ko di ko defare xorom ba def ci ragal yàlla mooy teewlu gi waxtu bi jaam teewlu màggu yàlla ci xolam waxtu nekk ndax ki woor su ko neexoon mën naa dugg ci am néeg tëju su lekkee ba suur nan ba màndi génn ne dama woor kenn du ko wedd waaye nag ba mu wéetee yëg ga mu yëg ne donte ñi nit ñi gis am na ko koy muraqaba koo xam ne alimun bi zaati sudur bàyyi xel xel kooka mooy dem ba def ragal yàlla ci moom ba day yamale wéet ak wéetliku saa bu wéetee gore wéetli ko itam gore kon noonu la xol mën a koot defe ragal yàlla ci xolub jàmm bi euh, buñ jëwee ci xaj ba tey noonu mooy yara ko tax a jóg ndax suñu borom nee na alxajju ashhurun maalumaat fa man fi fihinna alxajja fala rafasa wala fusux wala jidal fil hajj aj ay weer la ay jamono la yu ñu xam képp ku yàlla farataal ci mu aj mooy ka ca xas tab bi bu mu waxati lu ñaaw bu mu def lu ñaaw ñetti baat la tegale fala rafasa wala fusuqa wala jidaala rafas jëf la am na ci jëf yu dagganoon yoo xam bi nga xasee xarmal dañ la koy tere lu mel ne jotee sa soxna ak yu mel yoon yooyu dañ la koy tere boo xasee armal te yu dagganoon la kon jëlle laa nag ya xaraamoon euh, day baat bu làmb wax ak jëf lépp lu ñaaw ci wax mbaa moo ci jëf daf itam ci fusuuq jilaal nag wax wax kepp la mooy dàggasante xuloo werante ak yu ni mel kon inna baat bi tegtali jëf dong ak baat bi tegtale wax dong ak baat bu làmm ñaar yëpp muy wax ak jëf rafas jëf dong la jidaal wax dong la fusuux wax ak jëf la kon la muy tekk mooy bul waxati lu ñaaw bul jëf lu ñaaw boo xasee tàbbi ci xaj te jëpp jëf lislaam ju ñu lay wax ne nang ca moytu nangam du caagin dañoo bëgg nga sàmm ko ci jëf ju su jeexee nga delloo nag mel waaye dañoo bëgg mu nekk tàggatu bu jëf ji jeexee nga tàmm ko suñ leen koor na nga mel nii dañu bëgg sa koor sëy ca tàmb nga continué ko xaj melal nii dañu bëgg xaj ni mu yàggee nga xam lu gar nga daan mat weer mbaa lu topp dañu bëgg su aj ga jeexee nga tàmm loola ba continué ko kon nga gisee kon jëf yépp boo ci jël rek day mel ni yar doo nga ko taxoon a jóg ba sax atte yi lislaam tëral ne ko def nangam nañ ko def nangam yara ko tax a jóg ku suñu borom ne ku sàcc nañu dagg loxoom ki bëgg a sàcc su xalaatee kooñ ba mën naa tax mu dellu gannaaw ca loola ki bëgg ku njaaloon nañu ko dóor su fekkee ku sëngul ku sa bu dee ku sange nañ ko raj mu su xalaatee gàcce ga cay mujj mbaa la cee topp mën naa tax mu dellu gannaaw ila axiri yi ba ca te àtte yëpp ni jeex gise kon jikko yu ñu yépp kon lislaam dafay digle ñu yar nit ki ba mu génn ci moom moo tax mu tëral fayantoo yooyu ngir yar bakkan ak sellal ko te jépp jikko ju ñaaw ak defar ay jikkoom ba léppam baax ndax da jikko dafay yàq am réew di yàq société di tilimal deru aw xeet lislaam kon tëral yooyu ngir yar leen ak sellal leen ak defar seen jikko moo tax kon eh, yar nekk lu am solo yar nag am ay déggin yu bari eh, am it ay jubluwaay bu ñu xoolee ne yar ay gis-gis yu wóote moo ci am ci nit ñi bu dee xar bi yoon yi muy tubaab yi am nañ seen jis gisu bopp ci yar mooy dañoo dañoo jàpp ni nit dañ koy considéré jëmm ju am aw yaram rekk ndax ñoom zaahir rekk lañu xam moo tax duñ bàyyi xel ci yar bi ñu ko yar lu may luy tax yaram ba jag rek dañ fexe ba muy dund di màgg di wér di set loolu lépp luy tax yaram mën faa des rek ngir mën a dund mën a aaro moo tax dañ ko jàngal dañ ko yar waaye njàngamaa yar ba yépp nag lu ci ne dafay dellu ci luy tax mën a liggéeyal aw yaramam ba avenir am ci àdduna mën a baax dañ ko jàngal naka lay yëngatoo ba mën a fàggu alal ba mën a toppatoo ay yaramam ci lekk ak naan ak sol ak dëkk ak yu mel ni ñoom waaye duñ ko duñ ko jéggi euh, kon ñoom mooy mooy seen ci seen ci yar bu dee nag am na ñeneen ci nit ñi nit yàlla yoo xam dañoo gis ne yar dañoo ja considéré di nit jëmm ji am yaram ak ruux gis ne ruuxu gi yaram bi daf koy gàllankoor rek euh, ba tax lu yaram wi gën a dund gën a naat ruuxu gi gën a woyof di gën a néew doole di gën a gàllankoor di gëm a boromam ba tax ñoom seen yitte yëpp jëmale ko ci luy defar ruuxu ak lu koy màggal ak lu koy leeral waaye sàggane seen yaram waaye lislaam nag am gisin wu yaatu moom ci yar te Sëriñ Tuba gis-gisu lislaam bi gën a mat moom la mooy gisinam ci yar mooy dafay considérer nit jëmm ji am yaram amagu ruux ruux it dafa am ñaari melokaan melokaanu xam-xam ñu di ko tudde xel ak melokaanu ba bànneex ñu di ko tudde bakkan walla xol kon ñetti la yaram bakkan xel bu ne ci ñett yooyu nag dafa am wàll ci dunduk nit ki lum mu ca joué ba tax suñ bëggee yar nit ci lislaam benn bu ne ci ñett yooyu dañu koy bàyyi waale xel ci yar bi bu ne dañuy fexe ba jox ko xàq ba ma sëkk benn bañ cee gàllankoor moroomam eh, ndax benn bu ci ne dafa am waru waru waru garu boppam su bu nekk jëfee nag lam war jëf bala mu jëf mat euh, moroom jëf lam a jëf ba jëfa mat su boobaa nit ki dafay nekk dafa daal di ma sëkk dayob mat ndax su boobaa la taxoon suñu bind ko lépp dafay mat ci moom te mooy mu nekk jaamu bu yàlla bu ko ma sëkk ab jaam nekk xalifa yàlla ci kaw suuf bu ko ma sëkk ab xalifa tàlloon mooy li taxoon suñu ba bind nit ki mu nekk ab jaamu bu koy jaamu nekku xalifaam ci kaw suuf tal ma yar ci lislaam loolu suñu Tuubaa di leeral ne waqaadana turran li xayril maslaki an naltifaata aabidin lil xalqi yaxjubu baynahu wa bayna al xaq na nga xam ne jaam bi bu dee geesu bindeef di leen bàyyi xel ci jaamu yàlla dañ koy gàllankoor di dox digg ma boromam wa minhuma yahwa wa shaytaanu rajim falyasi kulla minhuma fa yastaqim wa aqalaka jal xaaida alhawa wala taakis fa taxwi gadabal mawla ala nee na bokk na ci yooyu nag yàlla gàllankoor may bànneex ak seytaane mu ko ñoom ñaar ñëpp na leen mooy lañ lay diggal musiba la waaye lañ lay tere mooy la baax kon na nga feex ba wuute ak ñoom tey nanga jël sa xel def ko muy sa imaam jiital ko doo caa toftal sa bànneex waaye saa boo jiital sa bànneex tekki sa xel daa tàbbal ci kan nee xam du ko mat bu ko bu ko bu la sam xel woo matee ci ngërëmal yàlla la jëmee waaye bu la sa bànneex wammatee ci merum yàlla la kon nit bu ñu ko bëggee defal ci lislaam mun ta ñàkkoon ñu bàyyi xel ñett yooyu ma tuddoon ci yar bi ñu ko yar euh, suba mooy tax nekk mu'min euh, danga mooy nga gëm ni nit dafa am yaram yaram bi nga ko yar nga bàyyi ci xel yaram gëm ne dafa amum xel yar bi nga ko yar nga bàyyi ci xel xel mi gëm dafa am bakkan bakkan nga bàyyi ko xel ci yar bi nga ko yar su dee nag yaram lañ koy yare mooy yëngutu yëngutub liggéey ak yëngutub jaamu yàlla yëngutub ci liggéey ca lay amee lay dundal yaram wa waaye yaram wa lañ koy doy na mooy jàmm yàlla kon muy yëngutu jàmm yàlla ñu yar ko ci jaamu yàlla ak nangoo liggéey ci lañu yar aw yaram su dee xel dañ ko yar ci xam-xam ci jàngal ko bam xam euh, xam yàlla mooy la ci xam yàlla xam yàlla mooy tax nga xam fa nga ko war a teg mooy sa mooy tax sa sa tawxiit mën a mat sëkk matee nag mooy tax lam yayoo ci jaamu nga matal ko sëkk ruux nag mooy jëmm ji bàyyi ko ci Eh, borom bi subhanahu wa taala ñu tàbbal ko ci yaram muy diri si dund gi saa bu doxee dox yu nu xam-xam ñu tudde ko xel saa bu doxee dox yu nu bànneex ñu tudde ko bakkan wala wala xol mu te ñàkkoon ñu bàyyi ko xel cer bi day ñëw ci aalaat maanaam jumtukaay yu ñuy jëfandikoo ngir yar nit ci benn bu ci njatt yooyu léegi duy ñëw ni ci maqasid at-tarbawiyya yii yi nga xam ne sëñ tubaa moo na ko jàngal nañ xam ne sëñ tubaa ni mu doon yare képp koo jébbal boppam njaayante moom lam la yare ba de ba defar la ba def ci yow melokaanu texe tàggal la ak texe di tey lu ñu xam ñun ñëpp xam nañ ne yooya mënta ñàkkoon ay maqaasit yu kawe yu mu làmboo suñ delloo ci ay mbindam dañ gis ne am na ñett jublu jublukaay yu màgg yoo xam ne Sëñ Tuubaa daana ko jubloo ci ab yaram ba ci njëkk mooy dana jublu ci bi nga bi mu la yar nga nekk jaamu yàlla bu ko ma sëkk ab jaam ñaareel ba dana jublu ci yar bi mu la yar nga nekk xalifa bu yàlla ci kaso bu ko ma sëkk ab xalifa ñetteel ba dana jublu ceer yar bi mu la yar nga texe àdduna ak àllaaxira yooyu jubluwaay nag ñett jubluwaay yooyu day am yeneen maqaam sit yu ko tungoom yu tax yooyu mat te yooyu matu yi duñ mat ñu waxee ne na jaam bi nekk xëli na jaam bi nekk jaam yàlla bu ko ma sëkk ab jaam kon lay tax loola mën a am lay tax lool mën a am beneen maqsad lay doon boo xam ne mooy tan day aajoo ñu xam ko mooy dañ bëgg nit ki nekk aarif bi lay taala mooy nekk ko xam yàlla dañ ca bëgg itam mu nekk muuqin bi mooy nekk ko wóolu yàlla mooy ko am yaqiin euh, dañ itam bëgg mu am mu nekk ko àgg ci yàlla wóolu yàlla nag mooy maarifa bi lay taala maarifa nag dafa am ñetti daraja Eh, mooy ilmul yaqin ak aynul yaqin ak xaqul yaqin ilmul yaqin mooy xam bi nga xam-xam bi nga xam nga ko rek nag xam nga ko waaye xuusoo ca ba xam dëgg-dëgg nu mel ci misaal ñu la xaaj rek ne la màkk nii lay mel nii lay mel fii lañu fii la ñu def lii ba nga xam ko ban ko jàngale waaye demoo fa loolu mooy ilmul yaqin waaye wóor na la noonu la demee aynul yaqin nag mooy nga dem ba jonjoog yëf ya waaye leen la jàngal te gisoo boo dee ba teg sa bët ba teg sa bët gis ko aynul yaqin nga ko xàqul na mooy nga dund ko nga dund ko dëgg-dëgg ba mu ne ci yow loolu mooy xàqul yaqin alusul illah mooy àgg ci yàlla nag bu ñu ko waxee mooy nit ki di yëg boroomam di teewlu ci ab xolam ak maggam ba mel ni mi ngi koy gis ba nga xam ne soo deen ba jàkkaarlu yàlla ci sa ñaari bët dootu wutee na nga ko day yéege ci sa xol mooy loolu mooy dégg dëgg wusul yaa ngi ci day mel ni kon maqaasid yëpp kon dafay dajale ci ñett ñett yi ma tuddoon mooy lay tax nit na nekk jàmm yàlla bu ko watu jàmm nekk xalifaam bu ko watu xalifa ak texe àddina ak alaxira su matee rek ci lay yii door a mat muy ñett yoo xam ne kon du mat lu may ba dafa am yeneen yu ko jiitu yi mat mu doot yaa mën a topp ci mat ga kon mënut a ña mënut a ñàkkoon xol bi nekk xol bu laab mënut a ñàkkee jëf ji nekk jëf ju sell mënut a ñàkk cër yi itam nekk cër yu laab mënut a ñàkk te jikko ji nekk jikko ju baax faaw it mu gañe ay noonam yi taxoog moom ak yi ko jege. noon yi taqoog yow mooy sa bakkan ak sa bànneex noon yi la jege mooy seytaane ak àdduna Sëñ Tuubaa daa ci daa ci sonne lool ci ñuy xeex ak noon yooyu ñu di ko tënkee nashhadu nashhadu nun gi mooy an nafsu shiin gi di al sheytaan haa gi di al hawa daal gi di ab duniyaa seytaane bànneex ak bakkan ak duniyaa ku leen fetal daane nga noon yu bon yaa muy ñaari noon yu la jege ak ñaari noon yu taxoo ak yow nit ki nag munta man munta am yee ma tuddoon muy maqasid yooyu ñu jublu ci yar lu may dafa nërmel noonu yooyu ba noppi kon munta ñàkkoon xol bi sell ngir jëf yi mën a sell ndax jëf yi muy cër yi la ñuy jëf mooy la ca xol ba mooy la ca xol ba mooy la ci yi cër yi jëf ko <coughs> su xol bi lu baax rek la fas cër yi duñ mën a jëf lu may lu baax parce que xol bi safaan la fas cër yi boo bëggee jàmm yàlla doo ko mën génn ci lépp noonu li fekk mi nga am leeru xam yàlla dem ngërëmal yàlla te saa saa boobu di am la ca ma kon bu xol seetee rek nga fexe ba gañe noon yooyu kon leer goo xam yàlla ak ngërëm dafay tàbbi ci bi bu dee ci gañe gi nga war a gañe noon yi loolu suñu tubaab di wax ne maa xaasa may yukaafiu shaytaana wa nafsahu ma alhawal jinaana wa daa ma lam yatafi lil xalqi yaxwil wusula lil ilahi l xaq neen maa ngi ñaan saa saa mi nekk ci nu saa li fekk kiy jànkonte ak seytaane ak bakkanam bànneex di xeexe ñoom li fay mi ngi am aljanna na saatu di sax kon da jëlee ko nit ki mënut am ak texe li fay gëñëwut noonam yooyu ni ko noonu it ki bañ a bàyyi xel bindeef yi ci ay jëfam ak i pas-pasam waaye yàlla rek yitteel ko kooku mooy mën a àgg ci yàlla subhanahu wa ta'ala kon da ci dégg ne kon su fekkee li fay yàgg bàyyi xel nit ñi ci say jëf ak say pas-pas gàllankoor lay doon bu dox si diggante sa borom te ci njàngalum téere boobu di Masaalikul Jinaan sëñ bi leeral na ci ñetti jublukaay yooyu yëpp ngeen xam ne yoon wii nga xam ne moom lay woote tam di ko leeral ci téere bi mu yoonu tasawuf képp kuñ ca yàpp jaarale ko ca soo maqaas ñetti jublukaay yëpp dafa daan daj ci moom te mooy dana ci moom dana ko wóolu itam dana am yaqin kon ci baaxu jëf yi euh, ak kon mënut a ñàkk daal jëf yi sell jëf yi sell ci Sëriñ Tuubaa di wax ne xultu fa man yuri salaaxal amali fal yarkanan lil awliyaa il kumbali ku bëgg ab xolam baax ay jëfam baax na jàng jëm ci kilifa yi mooy na dem yu yar ko léegi dañ ko cee yar bañ ko yar cee lay mën a amee dëgg-dëggi salaaxul xalb te salaaxul xalb ci la salaaxul amal di amee jëf nag mën da sell lu may ay mbir yu baree bar da daje bokk ca yooyu faaw nga sell mooy nga am ixlaas mooy lépp looy jëf na yàlla dong tax bul ci aj leneen na jëm yàlla dong tax faaw nga dëddu àdduna faw nga topp sunna si Yonent bi sallallahu alayhi wasallam faaw nga nangoo liggéey yooyu yëpp dafay daje jëf door a mën sell buñ setantalee dañ gis ne Sëñ Tuubaa ab yaram ci juróom benn wos la ko tegoon bu njëkk bi mooy bii atun saaliha mooy aami environnement dafay jeexital nit ki environnement bi mu juddoo dafay jeexital ci moom environnement bi muy dund dafay jeexital ci moom kon su fekkee nit ki da ko bëgg a yar te environnement bi nga koy yar li nga bëgg a def ci amut ci environnement ba def ko ca lay jafe moo tax da daan sori mbooloo mi dem ci àll bu sori mu sañc ko àll boo xam la mu bëgg a def ci ñi muy defar lam ca bëgg a def duñ fa gis lu may loola duñ fa dégg lu may loola duñ fa dund lu may loola su ko def def ko ñoom day yokk loola ko tax a sanc Daaru Salaam gi mu njëkk a sanc moo ko sax tax a sanc Tuubaa moo ko tax a sanc Mbàkke Bari kum digal nga sanc it loolaa tax mu digal la nga sanc mooy fexe ba sori mbooloo mi ba la ngay def ci ñoom dara bañ koo yàq parce que nit ki da nga koy yar mu jaxasoo ku bokkul pas-pas loo ci yar doo def bu ko ne mu mu daj daa mel ne environnement bi mel noonu la dund fi ne mooy yar yëmbut loo yar doo def ci sa xale yi nga téye sa biir kër di def ci yar bu baax loo ci yar di def kon su génnee benn bi yàqaat lépp ndax la muy gis rek dafay ak la muy dégg dafay safaanoo ak li ngay def ci moom kon bii atum saaliha mooy jumtukaay bi jiitu ci li mu daa jëfandikoo ngir mën a yar ñaareel mooy xurwatun xasana royukaay bu baax nit dañ koo bind ci roy faaw muy roy te bu royut lu baax ku muy roy ka muy gis lu muy roy la muy gis moo tax nag Sëriñ Tuubaa ngir xam gim xam roy place bi mu am ci nit tax na danaan fexe ba ki muy maanaam dafay fexe ba dafa njëkk ci njëlbeen dafa tàmbalee formé formé ay kaan ndax la ci ëpp jëmu jëppam la jëmpam la mu daan nekk seen mooy daan nekk seen xol moom ma di seen biir da dem ci àll ba mu ne faa ñu ñoom moom la ñuy gis la muy def lañuy gis soo dee kon moom la ñuy roy la muy def la ñuy la muy def roy waaye xam na ne jot gi mu am dana ko mas a ñàkk tax mu teel a formé ay cadre yoo xam ne su dee ba ñàkk jot cadre yi mën koo wuutu ca lam doon def loolu moo indi seexal ci yoon wi seexal mooy rek ba nga ñu boole ak mbooloo ngir nga nekk seen ma loolu mooy indi seexal ci yoon wi moo tax bi mu demee ci géej gi lam doon liggéey dara yàqu ci mi ngi doon continuer di dox nam doon dox bi si tubaab nekk nga xam la muy nekk lépp ci loxoy tubaab yi ab liggéey mu sa taxaw mooy dafa fexe former ay cadre bay mbooloo mu jàppoon defal na leen roy ñetteel bi ju rafet bëgg a yar nit mënoo ko talla dayu ko xam-xam xam-xam dafa mel ni fondation ci bâtiment soo bëggee tabax bâtiment te jëtoo fondation la ngay tabax du taxaw mbaa su ci màbb la jëm noonu la xam-xam mel kon faw ba ci àdduna sax xam a koy jagal nit ki mënta nekk président de te jàngul nit ki mënta nekk mu te jàngul mooy nekk directeur directeur société te jàngul gannaaw àdduna képp ci njàng lañ koy mën a jagale kon rawatina mbirum yàlla kon xam-xam te ñàkk moo tax ma leen daa yar ci xam-xam euh, ñeenteel bi daana leen yar ci jaamu yàlla lu tax mooy jaamu yàlla dong nga lañ du fi indee nit ak jinne dara taxu suñu borom bind leen lu dul nañ ko jaamu doom loolu dong la ñu doy doy wuñu kon yi day xàll day xàll aw yoon rek jaamu ji muy njàng yar baag lépp day xàllal jaamu gi aw yoon rek waaye jaamu gi moom lañ soxla ndax mënoo jaamu yàlla te amoo xam-xam mënoo jaamu yàlla te yaruñ la mënoo jaamu yàlla te fekk tàggatuñ la ca mas kon ya ca yëpp dafay xàllal jaamu gi aw yoon moo tax kon danaa boole kon ñaari enseignement enseignement théorie ak enseignement pratique théorie moom mooy la jàng ci téere yi rek pratique nag mooy la ngay jëf ñu di ko gis mooy dañ leen daa jàngal la ñuy jàng ñu di ko jëfi ci kanamam muy gis te noonu lañ doon tàggate saxaaba yi saxaaba yi la tax ñu daa yeexe mokkal alxuraan mooy aay bu njàng ba lañu ko romb dañ mokkal aay bi eh, tafsir ko jëfe ko door a jàll ci beneen aaya mooy duñ romb luñ jàng tëjëfiwuñ ko ba noppi Sëñ Tuubaa noonu la doon yare mooy da leen li ñuy jàng ñu di ko jëfe ci kanamam muy gis juróomeel bi daan defar seen jikko méngale leen ay tàggin ndax jikko ci nit mooy li nga baaxee lépp nit di baax waaye su yàqoo dara nit ki dootu baax moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon inna fil qalbi mudghatan ida salahat salahal jasadu kulluh wa ida fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiya al na ci jëm wenn suuf woo xam ne su baaxee jëmm jëpp baax waaye su yàqoo jëmm jëpp yàqu ndax loola mooy xol moo tax lañuy yar xol la ñuy sellal xol la laabal moo tax suñ bay jaxte waxoon ne jàppal sa xol bi defar ngir xol bi moo di sa kër defar sa kër bàyyi sab xol moo lu muy xalafaj sa kër lu jag-jag sab xol taq ripp lu bon lu tax nga gën kat fa yàllay mbaami ngon ka ki xaj defar sa xol bi ba xol bi ler lereke melax moo gën di wut néegi kii sàkk bi fatt taraj ña dëkke woon taax yi kaw tey def lu woon ña nga tey ñuy cawe yar foo tollu dégg faraj kon nit ki li tax mucc kon mooy ñu defar ab xolam sellal ko méngale ko ay teggin juróom-benneel bi mooy daan na leen yar ci liggéey ndax liggéey ci la asgor mën a wéer gannaawam ba mën a sàmm ngorom sàmm diineem ndax lislaam dafa bëgg jullit bu am dignité nit nag mënta am dignité li tey mi nga sukkandiku ci moroom nitam bala nga am dignité mooy da ngay sukkandiku ci sa bopp moo tax wala di léeb naan ku ëmb sa sànqal ëmb sa kers di léebit naa ku la abal ay bët nga xool fa ko neex waaye soo yoree sa bëti bopp fu la neex ngay xool soo ëmb sànqalus kenn da ngay moom sa bopp te xamal dafa a tabax ca Touba ko bëgg soñlante bañ teg ab jël joxe ko ba dajale nañ ci joj jamono cinq millions daa ko tuddee ñu ko bi dajale ba Sëñ daal di woote ba ñëpp day mooy lan dama leen a bëgg a leeral li taxoon ma dee leen ko laaj mooy damaa bëgg su ëllëgee lépp lu ngeen bëggati na ngeen def nii te ba ñu sukkandiku ci keneen ndax keneen koo sukkandiku ci moom saa su lay manal ndax lay sañal te ka lay sañal na yàlla na fekk muy ko la war a sañal kon yeete war na ca moo tax murid yi mosuñoo aju ci kenn bu dee jumaa ji donge yow ko defar lépp ba mat luñ mas a defar rek raay bi ba bañ ko bëggee tubaab yi jafeel murid ya dajale àll fekk ba sëkk gasabu seen bopp jariñ ba Tuubaa ak luñ mas a bëgg rek lu fi mas a taxaw murid ya mooy si tubaab moo leen ci yaroon mooy nangoo liggéey moom sa bopp bañ a sukkandiku ci kenn Euh, moo tax Sëñ Tuubaa bañoon lool nit ki toroxlu ci kanam borom alal nen saa boo demee ci kanam borom alal toroxlu fa donte sax borom alal booba saalix la mu nit ko baax la jàmkat yàlla ku yiw la waaye am na alal tax nga toroxlu ci kanamam sa diine bu doon ñetti xaaj ñaar yi ñàkk nga ko su fekkee kooku nekkut saalix nag sa léppi diine nga ñàkk

yal na leen ci sukkandiku ci seen bopp tax na bu xoolee dundiinu àdduna dangay gis yaa boobu noonu jeexital ci murid yi bu njëkk nit su ma saan tërbiyee wàcc day wut am layu rek wut ay benn benn doomi tàngal benn benn socc tàmbali caa jaay mooy doxeeb dara su doxee tuuti lay ba soppi lu ko ak kees dem ba kee ko soppi li ko as kantin kantin dem bu mujj di magasin léegi dañu da gis ne léegi nit bala kenn tam da nga naan faaw ma leb banque 2 millions wala nangam ngir amul départ kon mooy sukkandikoo ci sa bopp amul sukkandiku ci bor mooy dañ daan am 100 képp tàmbalee ca 100 francs dem ba doon ay millions moo tax boo xoolee ñàkk gi ñàkk xel dara mooy li ëpp ci économie réew mi ci loxoy mu yi la nekk bu dee jàng nag jàng tubaab. ba am ay diplôme moo day jàpp na moom ci bureau rek la war a liggéey jami bi li tax bari fi ne nga xam daal nga xale yépp ñu ci mbedd mi attaay donc li cotisé attaay la ñuy yem ci ker bi fu leen fekk fal di fekkaat mooy jàpp mooy xeeb nañ beneen liggéey jàpp nañ daal toog ci bureau bu ñu climatisé moo lañu war a liggéey xeeb nañ dem ca marché ba yor taabal xeeb nañ leen moo tax li ëpp ci ndaw ñi liggéey loolu lañ ko yóbbee waaye murit moom danaa tàmbale ci gën li gën tuuti yanuy saako xeebuñ dara moo tax lépp ci économie réew mi ci seen loxo la nekk waaye dañ leen caa yar yar leen itam ci doylu moo tax bu njëkk it mag ñi sum suñ masaan waxtu ji agsi dañ daa indi jiw yi ci Sëñ Tuubaa mu ñaan ci am mag mos a indi ñaari takk sëñ bi laaj ne ko lii lu mu mu ne ko lii de ci sama mbayum daaw laa ko wàññi woon mu ne ko lii nag mu ne ko lii moom seko la dama ko lem mu ne yóot la mu wàññi ñaan ja ne ko lenn du ci ñaan xam barke du ci wàcc man kon da leen yaroon ci sukkandiku sa bopp ba ñu sukkandiku ci mbar wala sukkandiku ci sa tànn ci tàllal loxo di séentu e, sarax buy war a jëm si yow wala ndimbal war a jëm ci yow loolu si doo yëru ci am moyit moo tax mu yàlla ni itam kenn ku nekk fa nga toll nga toll fa fa nga toll nga toll fa mooy doo yóotu loo jotut nañ xool dundin bi boo demee fi ni Dakar man nga ne kër yi fa nekk man nga jàpp ne quatre-vingt pour cent kër yi ñu dëkk moomuñu ko dañ ko luye daanaka vingt pour cent rek ñoo cee am seen prix bopp boo ñëwee Touba nag man nga téeméeri kër yoo gis juróom-ñetti fukk ya seeni borom moom wala juróom-ñeent fukk ya kon gis la leen sit bi yare kon mi ngi ñëw soo demee da ngay nit ki kon bu mu weesu fam toll mooy da ngay gis nag ñàkk doylu bokk ca yow dugg saret dong nga tollool wala car rapide ngay sob sob yi jël taxi mbaa yu jël taxi nga tollool ngay sob sob naa da ngay jënd oto nga am nañu oto nga dem lebi ëllëg muy dal gis nga ñëpp terrasse nañ nga ne ah, naa terrasse waaye lem lebi banque xaalis ba seey mu jël lay jafe-jafe mooy kon ku nekk da def la nga toll mooy boo gisee murid ña ngay dund lool boo fi ne sareeti mbaam yi day fees dell dañuy ami client kon ña toll sareet ña nga ciy dugg borom taxi dañuy ami client kon ña ña nga ña nga dugg ñaam ñaam ñaam oto ñaam jikkoot jënd ñoon ña ngi dawal kon kenn ko yaa ngi dund la nga toll ñaam yi kër yi ña toll sàkke sàkke nañu seen kër ña ko doon mën a sànq sànq gëblin ña ko doon a tiraat tiraat ba mën a bañ a mën bañ a mën étage étage kon daal yaroon na leen ci kenn ku nekk doylu yam ca la nga tollool te sukkandiku ci sa bopp moo tax gis nga ni mu jeexitali kon ci murid yi loolu nag war a nekk continuité donte mondialisation lëkkali na dund yi lëkkali civilisation yi lëkkali ni ñëpp bañ mel ni ñu bokk benn ëtt dañoo dem ba ku sàmmul la nga yoroon mën nga ko ñàkk loolu nag kon day mel ni kon kilifa yi am na ci responsabilité bu rëy mooy képp ku responsabilisé mbooloo moo xam say doom lañ moo xam say taalibe lañ moo xam sa luñ doon danga yëlif leen nga war leen a fexe ba orienté leen da ko nag muy communication dafa am doole communication dafa am ñaari effet mën naa defar lool waaye mën naa yàq lool kiñ defar yar ko da cay defar waaye kiñ yaru sàggane ko da cay yàq di ca yàqoo am na ijaabiya am na salbiya kiñ yar nag defar ay jikkoom ba xamal ko daal xamal ko lu bon la ca baax lay jariñoo la ca bon mu sànni ko ka nag mu topp bànneexam bakkanam moom lu bon rek mu yàq ak yàqe la cay liggéey ku bëgg xam-xam boo soxla ci xam-xam mi ngi ci internet bi lu lu mën a doon rek loo ci soxla waaye ki bëgg lu bon loo soxla ci lu bon mi ci internet bi communication nekk lu am doole bu ñu xamoon nag lañu war a xam nekk fa ñu war a nekk mooy communication dafa war a yokk sunu xam-xam war a yokk sunu ngëm yàlla war a yokk sunu pëstéef man koo jëfandikoo ci yaatal yoon wi yaatal njàngaleem Sëriñ Tuubaa yaatal xam-xam tasaare ko ci waaye su fekkee nit ki nag moom dañ ko sàgg yëruñu ko moom waxtu nekk lu yàqu ak lu yàq rek ci lay ci lay dund man danga ciy gis yoo xam da ngay wóor ne kii moom yëruñu ko ci wax ak jëf loolu na kon moo tax jamono ji ñu kon yar kon gën a gën a nekk farata gën a nekk lu ñu soxla itam ci doxe ko ak waxe ko ma sañoo laaj sëriñ Asa Si ñu nekkoon jaareem Masiixu Dajjal moom Masiixu Dajjal téere solo nañ ci lu bare bare bare yéen saa sama wax ci lu bari ne mujj jamono lay ñëw su ñëwee dana adduna ba mu daj lu mën yàq dana ko yàq day yor àjjanaam yor sawaraam képp ku ko gëm mu tàbbal la ci aljannaam ku ko weddi mu tàbbal la ci sawaraam waaye ka tàbbi ci aljannaam mooy tàbb ci sawaraw yàlla ka tàbbi ci sawaraam mooy tàbbi ci aljanna yàlla mu ne mën naa war àddina ci xëfiinu bët jàpp ne jëmmalee doon ju rëy ju na nga ami cër waaye fekk déedéet aw melokaan la rek suñu assasin bi ñu ko laajee dafa ne mooy li ngeen di tuddee presse maanaam mooy communication rek waaye buñ li nga xam buñ ne mën naa war àddina ci xëfiinu bët mooy bu fekkoon da dara publier ko internet ci saa si àddina sépp jot kon war na àddu ci xef yi nu bën nga gis li muy yàq li muy yàq ci ay xale li muy yàq ci ay jikko nga gisee kon wér na ne kon mooy masiixu dajjal ñu laaj ko it mahdi yu mahdi yoo xam mooy mujj jamono lay ñëw su masiixu dajjal yàqee ba dem mooy ñëw fexe yewinal lam yàqoon mooy leen mahdi yu nag mooy xasaayit mooy xas day sintuwaay daañ joxe misaal xoolee soowu jant da gis ndaw yoo xam ne at yu néew ci gannaaw rek seen yitte leen la woon football dem ci ñu ko waxeeti hmm? boîte de nuit yi dem plage yooyu képp moo doon seen liggéey waaye bañ tàmbalee jàng xasaayid ci leen wëlbati defar seen jikko bañ wan gannaaw mboolem lu bon di wanu ay nel di sol ay baylaat di jaamu yàlla nam waree bàyyi wan gannaaw lépp lu bon ba ci seen la fa nekk ci kuréel li xasida kenn xamul toll te ñëpp ay ndaw lañu te ndaw loolu ci wax démbam nga ne déedéet te xasida rek al defar ak dëkk yi gën a rëb ñoo ëppalee kuréel yi xasida fu mel ni mbuur dëkk yi gën a rëb waaye mooy bokk na ci dëkk yi gën a bari le ay daay lee nga kuréel yi xasida kon nag lañ lañ war a def mooy fexe ban yar ndaw ñi ca loola yar ndaw ñi ca loola mooy teel ko caa yee mu teel caa gimmi waaye luy jëfandikoo mooy internet moom li feeg xeexuñu ci moom kenn dootu am ndam ci yar sa njaboot man fekkente ne ku judd daal di am téléphone téléphone ba am nga ci télévision am ca caméra am ca appareil photo am ca fax am ca lu jumtukaay yëpp nga tax bu njëkk am na jamono suñ masaan diw day dem cinéma ñu ne ak ah, kooku day yàqu na diw day dem cinéma mbon gu rëy la bu njëkk ñu dem ba léegi cinéma kenn ku nekk ñu indi ko ci sa biir kër te cinéma moom bu njëkk bañ daa wax na yàqu nga moom dañ daa dañ daa affiché ay film ne yii la ñu rek nga xool bu la neexee nga dem seetaan yi waaye léegi bi ñu la indilee sama biir kër léegi tànnatoo yow ñoo lay tànnal li lay tegal ngay seetaan loolu bu njëkk dem ba yàgg na léegi kenn ku nekk am cinéma ci sa biir poche. nga xam ne bu la neexee cent nga mën a am connexion dugg internet mën na ko gis mu toog ne yor téléphone di di di manipuler ci lu bon rek la nekk li fekk sa njaboot nag tàggatoo leen ci loolu doo mën a am ndam ci yar sa njaboot am nag pexe yuñ ci génne ndax na mën naa am application boo xam ne boo ko installé ca sa téléphone def ko ci téléphone sa njaboot am na daal di site yoo xam duñu ci mën a dugg da nga leen mën a contrôler it saa boo neexee ngaa xam moom téléphone fi ni nii ci lan la nekk su dëgg ji lu ma tudd mën nga koo coupé ci sa téléphone ay pexe la yoo xam ne ki yar war naa nga xam ne da nga leen tënkal fa ñuy mën a dugg ak fa ñu dul mën a dugg li fekk loolu amul nag nga bàyyi ko ci lu ko neex jënd téléphone jox ko bàyyi ko ci sagoom la nga defoon ci moom ci lu baax lépp mën na ko yàqaat kon yar kon lu jafe la ci jamono ji ñu toll moo tax jamono ji ñu toll doon farata moo tax la jaadu waaye da cee raw nag suñu jamono ji nga xam ne yàqu-yàqu bari na yi fëkke bari na te wàllukaay itam yombut réew mi ñu dund itam am ci yeneen yëf yu tax yar ci jafe su fekkee dafa nekk réew réewum laïc mooy yow dañ lay yilif état da lay di tëral ay man ngaa wate loo xamut fekk la nga wate sa musiba réewum lay mooy kon nekkul réewum lislaam moo xam ne ñu tënk ci lislaam te code de la famille bi ñuy tëral yuy tëral yi ci ëpp dañ koy copier rek ci France seen loi la ñuy utilise te ñoom dañuy jullit te ñun ay jullit lañ quatre-vingt-dix-neuf pour cent ci ay jullit te kat la ci loi yoo xam ne ci ñu gëmul yàlla ñoo koy dund mën na la indil jafe-jafe ba tax liñ ci génne sa ñoo maye sa doom ju jigéen te amul fukki at ak doom ñett soo ko defee da nga ko mayee te amu ko dañuy wax ne dañ dañ dañ lay tëj doom soo mu bañ soo ko juddumaa bu rëbb ak kalaam ñu tëj la ñun sa doom ba am 18 ans am na sa seytaan lu ko neex te doo ko sañ a bañ su ko neexee mu ne footballeur lay doon su ko neexee mu ne góor jigéen lay doon su ko neexee mu ne leneen te doo ba wax ne mu kàll la sañ naa choisir lu ko neex doo ko ca gàllankoor ay mbir la yu bare baax yu suñ ci xusoon dañoo xam ne heure bi bare bare bare bare li ñuy jeexale kon mooy borom guddi gi di alxaaji Mor Fati Touré ah, mbokkum Serigne Touba la soxna Faati Anta mii taaw sëñ Mor Anta Sali mooy waajuram kon sëñ Tuubaa nijaayam lenqe sëriñ Tuubaa it moo ko boole woon ak maam Cheikh Anta ma da si Moussa Ka koy wax ne sëriñ ma Faati Touré ak Ahmadou Sarr daanuñu jiitee jàng Faatiha ko Sarr maam Cheikh Anta mi ko yarit doyloo ko ci léppam ba moom moom la doyloo woon ci jëmmi boppam ba tax na gannaaw borom gaawam wàcce moo ko defal lépp moo ko toppatoo moo ko jullee su Musaa Ka wax na ko alxaaji Mor Faati Ture Madina Faris la dem na Màkka dem Madina alxaaji ibrahima ja la àndal alxaaji ahmadu magam te sellal alxaaji sayux mbàkk yi alxaaji ñoo sang seex moo xam moo am xada alxaaji boole ci seex jaxate babacar mbay seex moodu kan aliyu ñang nii lañ day sër yamu jëndoon mag sër yamu jëndoon ca màkk ngir yóneen ba lañu ko sànge teg mbalaa ni bamba alxaaji mor fati turé ko jullee mat nam xalifatu te mën naa jàlle Euh, la ñu jaxale indi ci ay bay yu gàtt ci marché bi ko sëriñ Mawlaay Bousso moom sëriñ Mbàkke Bousso defal mu tàmbale ca alan tabiru an alxada abadan yajri wa yasjuru arbabanduha ayyama sajri wala tàmbale waaye ba demee ba ci biir nag mu ne huwal muntaxal bi baraaru dul badli wan nada aminul mala akrim bihi min xatan barri mooy ku ñu tànn ku baax ku mën a joxe ku tabe lool koo xam ne itam ku ñu wóolu la woon yim na tedd nga baaxu cam soosu waxit ne Sëriñ Tuubaa ko yar ak maam Seex Anta tërbiye tërbiyewu ñoom ñaar ñëpp waaye seral na xolum kenn ku nekk ci ñoom ñaari ci lu nëbb ak lu feeñ tarabba lada cheikh alxadim wa silwihi li kullin aqarra al ayn fi sirri wal jahri ku fawqa lahu siqul iradati xidmatan wa xubban bi ihdaai alladi xaaza man duxir nee na moom day mën a yox ne la ndax amoon na si doxul iraada mooy ku dëggaloon ak cofeelam ci Sëriñ Tuubaa ak nameloon ku liggéey Sëriñ Tuubaa yi bu ràññiku ku bëggoon Sëriñ Tuubaa te ku daa joxe hadiya la yëpp ca la day ci moom yëpp moom mu dafa ko tuuba li abdin muridin saadiqin lahumu bi xidmatin aw xubbin aw hadiyaat neneen ñett yépp dagg na ci moom mooy dëggal na ak iraadaam ak taalibeem ku bëggoon Sëriñ Tuubaa ku ko liggéey yàlla ku ko daan jox itam mboolem lu daje fi moom la bay bi ci teg na bay bu bay ma neex la safiyun wa taqiyun mutahharun saniyun wa sunniyun ridan saalimu sadri ku sell la di ab suufi yu ba ragal yàlla doon ku ñu laabal ab xol ku sell ku yëkkati ko ko kawe waaye ab sunni ba wax lépp da ko teg ci sunna waaye doon ku set ab xol mooy ku ab ku ab xolam mucc ku sebe ji faman yurshidil aqwaama da'ban yaquluhum bi amrin bi ma'rufin wa nahyin anil munkar ma ne ana kuy ana kuy deeti gindi mbooloo mi sax ca dànk di leen wammat ci di leen digal lu baax ak di leen tere lu bon wa yelloo kitaaballahi xaq tilaawatin wa yamuru afna al masajid bi dikri ana koy jàngate alquran dëgg dëgg nañ ko war a jànge di dundal ëtti jàkka yi ci di dudd yàlla fa man yukrimil jiiraana bi dayfi wal kiram wa yuslihu daata al bayni bi lutfi wal nasri ana koy terale ci dëkkandoo yi di teral ay gan ci ay bernde di defar ay diggante ci ak ñaawante ak ci ndimbal bi himmatihi banal madinata fi xafri tabawwa'aha lillahi maanaa dayul barri nan ci njàmbaaram ak ci ci la sanc madina ci jamono ju jafe tey sanc ba lépp ngir yimme yàlla dong ak mën sàmm ngoram liggéey itam tool dund itam am ñaqam neen ca lool nag ci la ci la defale tawfiq ñam àndal ci mbay ma ñuy bay ba jàpp jàppandal leen seen doxinu adduna waaye mu gas fa ab teen boo xam ne màndal na képp ku fa nekk wa asadahum fi xardihim bi suhuliha wa rawwa min alwildil mufajjari bil xafri wa xajja baytallahi wa atamara alfata wa zaara imaamal mursalina ulil faxri xaj eh, na itam néegu yàlla ba umra na siyaare na itam imaamu muslim mu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mboolem gaa yu baax yi alayhim salaatun ma salaamin bi alihim wal asxaabi wal xuddaami min rabbina al barri fa akrimhu mawlaahu nuzulan munaaman lahu fasaxa arrahman bil amri wal bishri wa askanuhu alal jinaani mubawaan wa raxabahu bil bisi fi nashri wal xashri man maa ngi ñaan suñu borom yàlla na ko defal teraanga jox ko wàcc waaye wu muy xéewu su yaatalal ko ci kóolute ak mbégte dëkkal ko àjjana ci gën a kawe yaatal ko ci mbégte waxtu wu ñuy dekkee ak ñuy pang ak waxtu wu lépp yàlla su noonu ndax ñu ngi ñaanal sët yi organisé lii yoo xam ne la si ñaanaloon alaaji moo fàttali yàlla daal yàlla na daal ci seen kaw loolu yàlla ko suñu borom firndeel ci mboolem ay sëtam yàlla sax ci xéewal suñu yàgg ko woote te su ma leen ci nam defal ñu tawfiq jéglu baax a baax ci njumte yeeg rëq-rëq yeeg xam ni ko ronoo daa xam-xam la ñëm léeru yàlla suñu borom booy dimbale moom defal tawfiq xiir nu ci ak njub te saxal nu ci te def dëgg dëgg taalibe Sëriñ Tuubaa Sëriñ Tuubaa nangul suñu taalibe asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ci sa jëmm ji da leen a xamal ne yow ak ñoom yéen a ci bis bi li leen war ci bis bi ci defar ay xéewal ak i baas ak sées ak lépp wax nga ne mbàkki loolu moo la ci war waaye kon moo tax lii ñu sàkk ci yow nga jàppandal ko lool ba ba ñuy sàkku sax ne nañ yëkkati nangam di la ko jox loolu da leen koo gàntal loolu gis nañ ko te yëg nañ ko de jàpp nañ ko te jëmmi sëñ Tuubaa ji rekk tax ñuy ñaan suñ borom mu gën laa taxaw gën laa sàmm ba li nga am yéene liggéeyal sëñ Tuubaa ci diine ji lépp nga defee ko na nga ko bëggee barki Seexu Xaadim kon na ñëpp maasi déglu teewlu ñu jox sëriñ Ahmadou Touré mu jottali ci ay kàddu